bokkoon ci ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum làmb gën a siiw lool moom mi la ñu ko doon woy ancien gloire ay pan de danse yi nga xam ne dina ko daan amal ak tamit noonu yi nga xam ne fësi woon na ca làmbum ak coiffure am moom mi la di Boy Bambara moom la ñu dal di yëgle ne moo génn àdduna li ni mel nag nekk xibaar boo xam ne moo ni day bu ñu fàttale ko baax a baax jotoon na fi am fukki fan ak juróom ci weeru avril bi ñu génn mu boo xam ne daanaka askanu Sénégal rawatina ñi yëngatu ci wàllum làmb ñëpp ñu ngi koy naqarlu ginnaaw njaxat bi nga xam ne daal dinañ ko yëkkati teg ko ci famiyam ak ñi nga xam ne ñu yëngatu ci wàllum làmb teewul tamit ñu koy naqarlu bu baax a baax bu ñu sukkandiku ba léegi ci xibaar yi nga xam ne suñu naataango yu Seneweb daal nañ koo jox mooy Boy Bambara mili daanaka amoon na ay jafe-jafe maanaam ay wér yaram noonu day ci vrai turam comme niñ ko xamee Aliou Camara nekkoon koo xamante ni ku fës ci wàllum làmb dëkk woon fële ca Parcelles Assainies waaye nag yàgg na lool ginaaw bu mu amee ay jafe-jafe maanaam wàllum wér-gu-yaram lu ñëwal nag dencub jëmam joojule dinañ ko amal ki suba ci samedi ci ci loolu yëpp teewul ñu baree bari ñu ngi koy jooyte noppeeguñu Boy Bambara nekkoon ab boulevard waaye koo xam ne ku fës la ràññeeku lool ci làmb ji rawatina file ci Sénégal ñu koy jeexal askanu Sénégal rawatina famille am yàlla na ko suñu borom yërëm te xaral ko aljana allahuma amin